yu am solo loole mooy gis-gisu kii di Mamadou Sy Albert nga xam ne mu ngi rafetlu bu baax dogal yi nga xam ne jëwriñu njàng mu kaw mi jël na ko ngir jubbanti cycle académique bi. premier ministre bi ak ministre enseignement supérieur jóg nañu pour euh, jéem a xool naka la ñu fexe ba université am année scolaire euh, bu normal loolu aussi day wone day firnde que euh, que université am na jafe-jafe bu rëy parce que bu dee année bi du jeex. dañu tegalante ñaari at ñetti at xamatoo sax année bi kañ lay commencé ak kañ lay jeex bon loolu moom suñ ci jógee lu baax la. waaye nag mu am ci ay dogal yi nga xam ne dafa mel ni gisoon nañ ko ci nguur bu weesu. te ñuy ragal ñu jaar ci même yoon bi. gouvernement bi aussi su jëlee décision bi dina yóbbu ay bachelier école privée est-ce que lu daloon Macky Sall du dal Diomaye euh, loolu pour mu bañ ko dal daal il faut mu jël décision nangu joxe xaalis euh, muy bourse bi muy subvention bi. muy encadrement bi loolu jafe-jafe bu rëy la pour en tout cas mu mu daj. bokk na itam li nga xam ne mën na tax mbir mi gën a sooxe mooy dogal yi soralewul li nga xam ne moom moo gën a indi problème bi ci njàng mu kaw mi. su dee université am na jafe-jafe bu rëy bu nga xam ne la ràññee nañ ko mooy grève. soo amee perturbation benn année li ngay perte ci milliard dafa bëri. waxatuma nag enseignement bi retard bi ngay am image dëkk euh, réew mi. donc grève li mu lu mu yàq ci suñu enseignement supérieur bari na defe naa loolu su dee en tout cas euh, toog ñoom ñëpp ñu waxtaan ñu xool lan moo sabab grève yooyu ak lan la ñuy fexe ba grève bañ a amati ak lu ci mënti am kii di Mamadou Sy Albert di xam ne volonté politique kese doyul faaw rek nguur gi boole ci ay moyen ak itam boole acteurs yëpp yi nga xam ne ñoo bokk ci secteur bi tey itam am fulaay doxal bépp dogal bi nga xam ne jël nañ ko ngir jubbanti njàng mu koy mi